maam ñu lay fay bu baax di nuyu ak ziar képp koo xamante ne si yaa ngi si daan jamono ji Elz bon je dirais benn gosse la boo xamante ne si euh, c'est c'est un passionné du du cinéma déjà balaa maa ñëw ci euh, tout ce qui est euh, ci monde digital bi donc voilà nit la koo xamante ne dafa bëgg cinéma di ci yëngu donc voilà quoi nekk nit créateur de contenu nekk acteur aussi donc voilà kooku koy Elz sama amour ci cinéma yàgg naa lu yag la lay wax ni parce que <laughs> depuis temps xalé parce que je me souviens très bien ay fosco bu nam école tout le temps dama doon am habitude bon ñi nga xamante ci dañuy nek ci kiw théâtral bi dama ci doon bokk di yegg podium di voilà fofu la commencé di woné sama bop hein ah. série bi ma njëkk tourner tourné c'est Impact Impact la ak wa Marodi donc euh, du nuy Adama de de passage ak euh, équipe technique mo ma yépp franchement ñom euh, euh, comment dirais-je euh, Ousmane Ba. Donc voilà, tranquille. Donc faut commencer à Marodi Impact. Donc voilà, après Calista, production, TI 2.0. Récemment, la y a une production avec Bali Prod, une série, de avec les Matar et Al, tout le monde. Donc voilà quoi, Mojo et Modiaï, donc voilà, tranquille. Donc Marodi, c'était ben avant la boo xamante ne j'ai pas compris parce que dama bien un jour je me souviens très bien goût de la woon euh, Waron génn finalement ma annulé quoi donc on ma ko anjulee ma suis de quoi baye won sama et tout légui sama ben xarit bu wax Jules bon dafa am ñu soxla ah bon moi expliquer ma lu ñu suis bon y' a pas de souci parce que là goudi gi defuma dara de problème donc voilà ci la jël sama numéro joko Adama Adama donc voilà né dañ la soxla won ci rôle tel expliqué wax ma scénario bi tout je suis intéressé voilà c'est nous là demee euh, tourner ak waa Marodi donc fekk fa équipe bo xamante franchement ay gars yu exceptionnel gars yu bax wax dëgg neex yàlla intégré nice donc voilà quoi ma ñëw ñu accueillir ma ma liggéey ak ñom donc c'était c'était vraiment un plaisir quoi. oui rôle mu ma ci doon <laughs> bon assistant médecin laa woon ah dama doon assister benn médecin parce que mon copain là dañ ko xawoon dóor bal <laughs> Moussa Diouf donc voilà ma koy nuyu de passage parce que jour boobu moo nekkoon jour bi nga xamante ci lañ njëkk a donc voilà mu nekk nous ku baax wax dëgg neex yàlla bon ñu waxtaan fa mu ubbil ma on a vraiment échangé depuis lors nous voir di dégainer et ça fait plaisir quoi donc voilà bon moi je me dis que dara boo koy def nga beaucoup ko du quoi c'est pas un travail booy def dara loo xamante ko bëgg manam même bu amé choono sax choono bi bon doo ko bàyyi xel dama ñëw intégrer tranquille gars wax ma lii ngay tourner li donc metti wul won quoi wax deug fa neex yalla donc voilà c'était la première fois avec Marodi j'étais un peu gêné ak euh, ñi ñi ma fekk les grands artistes yi ma fekk mais franchement c'était bien on a bien géré et puis voilà quoi je pense que le moo est essentiel bi et puis voilà. yay 2.0 dafa am euh, sama ben sister bu ñuy wax euh, Fader Fader Diagne mom moo fa nekk assistante CAM donc voilà gars yi bu ñu soxlee tamit ay profil mu wax mako envoyer sama photo production bi si boppam gis sama profil ñu ne voilà le gars il peut bien faire l'affaire ci la ñëw tourné ak ñom c'était bien aussi ça s'est très bien passé et puis alhamdoulillah quoi. sama premier cachet <laughs> bon euh, bon pour parce que jamono ji dafaguñ fi loo xamante ni si non c'est mon premier cachet cachet nga ma wax quoi cachet c'était sumu ma 400000 mille ans hein c'était 400000 400000 la woon laa que a fayeeku donc mais joxuñu ma ko cash quoi dañ ma joxoon euh, su ma 150 150000 après tu l'as ñibbi si kër ga waxuma dara sama yaay ma ñëw gàlle xam ah, ne dañ bëgg xaalis <laughs> donc quand je suis venu à la maison euh, ma 100 100000 francs jox donc elle était contente en larmes en plus ma bon ñaara ma rek il di a mooy dàq lii du dara donc voilà et je pense que avec production yii di ñëw les contrats qui ont signés ça va être beaucoup plus chaud <laughs> ça fait plaisir. <laughs> waaw sama m'a mon sama xarit la parce que daf ma daf ma soutenir depuis le début hein franchement xam yombul nga nek ci dar beaucoup parce que cinéma bi tamit dafa y a des trucs yoo xamante ne dañ leen nga joué ko après c'est un peu mal vu ci ñenn ñi mais ñi nga dëkk ñi la xam dëgg loolu boko tourner rek gars dañuy comprendre quoi mom moom suma xarit la dëgg neex yàlla daf ma yag encourager encouragé di ma di ma di ma soutenir donc voilà diko ñaan a gudd fan ak wér bu mu fekkee lepp inshallah parce que voilà ñu ngi ci yoon bu baax bi quoi pour le moment non mais cinéma mom tellement bon c'est un truc que j'aime bien bon je ko tourner moi euh, rôle ne borom mais à part ça je suis acteur donc voilà les plus me mu man ak y a pas de souci tourner c'est le cinéma <laughs> ah mais mais pas ici xam fi dafa am gars nu ñuy la staff <laughs> bon je pense que j'étais tout seul là hein. j'étais tout seul au début parce que après y a mon grand mon manager qui est là de France il ba juste pour me suivre et François faidou donc voilà lui quand même il a été toujours là mais problème moi, même du a kenn le la quoi parce que des fois am na une vidéo yooyu boo def c'est un peu mal vu parce que ci ay vidéo là commencé fois une vidéo di poster non laa commencé donc pour ñenn c'était un peu mal vu donc ñenn ñi sax dañu bëgg di di nek ak yow parce que voilà parce que dafa am une vidéo yi ngay def ça les dérange un peu mais vidéo yi nek ci net bi bon comme comme tu les vois hein, des fois nga xaw a déguisé wu nekk ben mère ñu ngi see ñenn si ñee jegeen bon dañ koy dañ koy voilà voilà c'est juste ça quoi nous noonu lañ koy en fait mais nous, dañ dañ koy gisee que ni ki dafa ñàkk fayda wala affaire voilà c'est ça nous lañ koy gisee quoi en fait nous les gëm du parce que moi je me souviens très bien un bien benn jour dama programme une vidéo parce que loolu maa ngi seize abonnés sur YouTube 16, ma am ben xale bu bu ma invité pour ñëw tourner vidéo expliquer ko ne man genre vidéo ma quoi, ko mu laaj ma samay euh, réseau ma won ko sama YouTube amna m'a mu ne ki non il se fiche de moi quoi <laughs> naa <laughs> ba tu vois nous programmons tournage bi lépp ba ba instant bi nga xam war ma koy elle a pas pris l'appel tu vois da ngay sentir que les gars ils lay ñàkkal fay rek quoi en fait au début c'était ça mais là c'est tout à fait le contraire sama statut WhatsApp su ma nee dama soxla kenn y a tellement de voilà tu vois sur YouTube je suis à vingt deux mille abonnés sur euh, TikTok je suis à presque deux cent mille et sur Instagram euh, quatre mille et quelques hein.

même décor, même euh, habillement. Donc voilà quoi. Mais, ouais, mais bon, je nga bon, bon dañuy dañuy rek parce que <laughs> ouais, <laughs> ah. comme François comme c'est dit. il y a des gens après même pas des sponsors mais indi yo qu'on le bëgg euh bu ñu avez ya def dara rek. vous la déjà émission la bo xam ils m'ont donné tranquille. Donc voilà, c'est après milieu peut-être côté bobu nga ci am moy côté voilà gars yi dañuy def pour yow té duñu xaar dara en retour donc voilà ça fait plaisir hein donc euh, <laughs> amul ben problème c'était en 2019 je pense oui c'était en 2019 bobu fekk naa fi oui fekk naa fi ñeneen ah gis nga ni nga ma gisee nii am na ñu ma gëna neex sama waa kër boo fa demone tay ji da ngay da non non non do doo fa mëna a nekk kii nekk si ginnaaw ni rek François mo gëna graw garaaw ñëpp il est tellement drôle non il est tellement drôle et moi je mu naani don la ah, parce que suñu famille c'est vrai que gisaguma ci kenn ko ci def cinéma bon à part moi hein. euh, tam yo xamanteni peut-être bokon ci orchestre euh amna sama ben bu doon bu ak Fatou diko guitare et tout peut-être ci côté tu la am ñi nga xamanteni dañ ci ci côté musique c'est vrai que def musique au début ah, oui dama doon def musique au début non mais dana la wax benn affaire est ce que xam nga gars yi bu ñuy préparé comme par exemple concert wala affaire yu demee noonu ay répétition la ñuy def jëlaat sen ay son di ko ñëwa di ko répéter mais là c'était les le début c'était du rap et là franchement je suis plus voilà quoi <laughs> hein dama don rap au début. bon groupe bu tas la y avait des malentendus c'était un groupe net crew man la woon ak sama ben xarit bu ñu bokkoon classe maa ngi fàttaliku Pape Omar ñom PGS King bëri nañu woon ah bëri nañu ñi am ñoo xamante ci si amatuma sax seen info légui xam duma lu ñu nekkee donc voilà. bon je me dis que c'est le travail hein parce que essayer def li nga xamante ci bon nit ñi dañ koy dañ koy bëgg je pense que maa ngi ci lancer boobu noonu ak série yi nga xam ne naa ko tourner ça fait plaisir des fois même si nekkaguñ koo xamante ne si bon. waaw dama bokk parce que quatre acteurs principal la donc man la ak Omar Dani ak ku ñuy wax Malick bon rôle bu fait fay rôle self made la quoi un gars bo xamante si bon papam il a tout di jappalé ay nit door te mom maam doom am ay diplôme donc euh, voilà bàyyi ko quoi tu vois oui xam nga Samba Alar c'est un peu le mot donc c'est ça Samba Alar le donc voilà je vis pas avec ma avec ma mère sama yaay dafa décédé donc voilà moi mu ngi fii di tiaka di def ay affaire voilà il me calcule même pas donc père Modou mooy sama papa ci ci série bi makoy nuyu de passage donc voilà <laughs> non loolu lu ko gars yi di wax bëri na trop bëri na trop mais dafa am li nga xamante ne da nga koy jàng am loo xamante yàlla da la koy may voilà les euh, ñoom kader gaaj yi ñu cinéma co comme si benn autodidacte quoi ñoo xamante ne si bon ñu mais dafa nekk si ñoom donc bu nekkee si yow foog nga génne ko du dëgg donc man je je me dis que maison de production yi lu ñu bëri nii c'est bien parce que ça montre que ni cinéma bi fii commencé na nekk industrie te lool la te loolu sa la war demee parce que lañ gën a ràññee. mais amna ci si ñoo xamante ñu ngi ciy liggéey ah, comme Bali Prod. voilà récemment on a été sélectionné les parmi les cinq meilleures séries du Sénégal donc c'est pas c'est pas voilà du ndaw quoi ça fait plaisir ça vous montre que ni liggéey bi ñi def gars ñu ngi koy gis diko bay xel gëm sa bop liggéey jaamu yalla comme il le faut gëm sa bop parce que amul leneen parce que man suma ma gëmoo sama bop amana duma ma fi fii yëpp d'autant plus que defaguma dara d'autant plus que defaguma dara mais gëm sama bop je pense que man moomu fi indi quoi calculer je n'écoute pas les bruits extérieurs li ma war a def dama koy def et puis voilà je passe à autre chose donc voilà c'est juste ça. Wow, wow, wow, waaw <laughs> déjà tu sama moi sister rek moi, koy nous déjà Faye dara di ko di ko jaajëfal bu baax je me souviens li lay c'était en 2019 2019 dafa am dama comme dama yàgg def des vidéos maanaam moom Instagram la ñu xamante échanger contact et tout je suis youtubeuse nangam nangam tout ma ah moi je fais des vidéos comme ça la ñu am benn rendez-vous mu waroon ñëw suñu kër ñu waroon tourner Cambérène donc euh, voilà elle était venue ah ñëwoon na mais heure bi nga xamante ne moom la ñu waroon tourner bon kooku moom dafay liggéey dafa dafa yàggam boppam nag macha allah donc euh, mu wàcc ay 17 heures ñëw bu mu ñëwee et euh, commencé woon nañ di tourner mais dafa commencé woon guddi en ce moment y avait pas les matériels yor moon ay lumière yor moon bagage yu bëri donc ah, dañoo mujjee obligé suspendre tournage bi par la suite la dem la dem Maroc léegi bu mu demee Maroc après ci laa jël keneen yu tourné vidéo boobu nonou donc voilà mais depuis lors wax dëgg neex yàlla mu nekk ni ko xamante si bon c'est une personne que j'apprécie ba légui ñu ngi déggantee nek ci jamm donc voilà c'est c'est juste ça à part ça il y a Mafouz Mafouz c'est c'est c'est mon grand frère yàgg nañ yàgg na ma woo ci ay vidéo ñi ñi ñi ciy et tout ma koy nuyu de passage wa ci pranké <laughs> donc voilà il y a Bachir KMB les tout court Abou Blowing bëri ñom Singom gars yëpp su may su frère lañ donc voilà donc euh, tranquille ak faynara donc temps yi mu ngi def buzz mais tranquille gëmal sa bop c'est juste ça mais en tout cas ça fait plaisir ñooñu ma la limal ni ñëpp kenn ko nek bon amna luma lu ma liggéey ak yow dans le dans dans le passé mais n'empêche ba légui ñu ngi déggante nekk si et je pense que mille bi ñep ñoko ko bokk ah ñëpp ñoo bokk gars dañuy dañuy demalante xam nga képp kenn bo soxla kenn pour vidéo boko wowe da fay ñew té sans attendre rien de retour loolu s'entoure nous quoi donc voilà ma leen di jaajëfal bu baax. waaye samay samay samay projet fu mu nekk nii comme le ma la wax rek c'est les séries là je suis en contrat que euh, wa Kéwu ak Canal. en fait euh, benn vidéo acting la tourné won posté ko et ñu envoyé un message Instagram donc après ci laa tontu comme ça échanger numéro gars yi woo ma waxtaan ak man après ñu tok lu yàgg déggaatuma len mais dama toog ñu envoyé ma mail. après assistant assistante production bi woo ma téléphone expliquer moi né mo waaw c'est El Hadj Dia bi nanga expliqué quoi je oui c'est bien moi la soxla ben, nangam c'est la vie Expliquez-moi, euh, contrat affaire bon voilà après ça m'a intéressé Moi, c'est que mon manager François wa conseillé là, wax et voilà c'est parti de là à part ça. Ah, et eh. <laughs> ah, pour moi, la richesse. oui pour moi richesse suis là, je suis là, pas si ñi nga Je ne peut-être ñoo la wër man loolu laa jàppee mo ah. neex bon bu nekk yaa am lu nekk gàññite bon dafoo ci jàppale aussi ci war a pour amul sens waaye ñu ngi sant yàlla ñu ñu ñu ngi c'est pour le moment c'est ça ak euh, les acting ah les acting comme ni la ko waxee ñu ci bu baax gars commencé nañ ci donc ça fait plaisir ñu ay ñu ci préparé ay collab yoo ça fait des grands influenceurs ici c'est mon dernier mot voilà bon du bari hein, juste que nuyu ñi nga xamante ne peut-être ñu la fi andal Amina et François sama manager il a tout fait pour moi franchement je te mens pas et di nuyu sama ben sister ñu naan ko Mimi Sweeties. ma koy naan donc euh, voilà di nuy sama yaay di nuy sama pap di nuy sama yarak di nuy ñi nga xamante ñoy sama équipe ñu may liggéeyal les Gibson les Souley donc voilà quoi gars yi nga xamante ne len wowe duñu xalat les Marwan tout le monde David bëri nañ quoi aw dëgg yàlla mu leen lim gars yi maay jégalu parce que dañoo bëri tellement ñu nekk ci ginnaaw LG dafa donc voilà ñoom Aziz Diago la abu blowing tout le monde donc voilà quoi tranquille euh, xaama essayé leen muus bi ak euh, Baye Fall bi bon euh, benn benn Baye Fall la woon bon Baye Fall bi bon téeméeri at mu ngi yelwaan amul jën léegi un jour mu am benn yebo yam yaboy boobu mu am il a tout fait ba lijjanti ay nokkosam ay poobaram yu saf safal yooyu noonu yëpp lijjanti ko teg léegi dafa am benn mus boo xam ne moom moo nekk ci quartier bi lëmbee ñëpp yaa ngi dégg léegi muus bi un jour dox lottu naan nii di dox moom lu xew mu ne waaw mais père ah, nekk ko waaye yow xanaa yëgoo ni Baye Fall tey jii moom këram macha allah de maa ngi fa romb yu baax amay xeeñ mu ne ko nga ne ma lan rek mu daw dem ci kër Baye Fall bi léegi boo yeggee ci kër Baye Fall bi Baye Fall bi xam na muus bi parce que dégg na jaloore muus bi xam na bu baax muus bi lu muy def donc Baye Fall bi ñëw génn mu ngi génnee ci néegam noonu juste rek dajeeg mu xool muus bi mu li jëntuwul bi mu dugaat dem jëlee ay kuuram noonu léegi mu ngi dugg di génn Baye Fall bi xam na ni fu mu nekk nii muus bi maanaam xam na muus bi lu mu bëgg léegi muus bi sentir na ni sentir que ni Baye Fall bi lijjantu ko Baye Fall bi faalew ko. Baye Fall baa ngi dugg di génn di indi ay affaire am mu Isaa na ko ba musu de ni Isaa na ko agasa ay Fall Baye Fall bi lijjanti Baye bu xooloo ko sax Baye baa ngi sëgg rek di lijjanti ay affaire am yaa ngi dégg léegi nu mu dugg naka la duggee jël xaw am na lu doon jël safalam yooyu am na lu manqué mu dem di ko jëli léegi du mu koy jëlee rek muus bi yor rek cas jën bi rek daw tallal di daw di daw Baye Fall bi génn teg Cheikh Fall lu xew fii rek jàpp muus xoolal jàpp topp tànk muus yi di daw di ko dàqaji mu ngi yoroon benn yetu mooy yetu yetu pettaaw yooyu noonu yooyu la yor di ko xiiral di daw di dàqaji muus bi di ko dàqaji di ko dàqaji di ko dàqaji di ko dàqaji muus bi tourné xam ne baay faa bi léegi mu jàpp ko mu naan ko parce que euh, muus bi avant mu doon ñëw paa bi daf ko waxoon ne ko baay faa bi ak loo ko mën mënti def ci àddina boo ko nee Cheikh Fall da lay baal loo ko mënti def boo ko nee Cheikh Fall